président Macky a lu mu bëgg na ko jaar ci Ablaye Dieye fii ci Thiès. Ah. Ablaye Dieye a Macky Sall yow la bëgg. Ndiaye Ndiaye mooy mooy sa maam nga Ablaye Ndiaye yoo yaay Thiès waa Ndiaye lañ ko jox comme médaille nee nañ ko jox bekk suñ li nga xam ne mooy doxal siyaar ci Ablaye Ndiaye borom Thiès nag macha allah xol fedd na léegi léegi macha allah waaye nag léegi léegi na macha allah waaye nag Ablaye Ndiaye mérite Abdul Abdul Abdul maa ngi nuyu ñëpp di leen masawu coono ci doongaayu ak taw bi di nuyu kilifa yi fi toog nii di ko tàmbalee ci suñu DG muy président Ablaye Dieng di nuyu délégation bi nga xamante ne si moom la àndal di nuyu ñëpp di wax ni dañuy gàttal ndax taw bee tax ah boobu nag ku ñi ma xamul te ñu man la madame si Aminata Gueye jiite association jigéen jàmbaar di Thiès maa ngi kontaan ci delloo njukkal bi ma delloo njukkal suñu DG muy euh, président Abdoulaye Dièye delloo njukkal bi nag du hasard ndax président Abdoulaye Dièye bi ñu jàppante loolu yàgg na bien avant muy nekk DG la nekk fii Thiès dëkk fii di fi def bu baax ma yor sama entreprise événementielle femme mouvement si gi jot nañu def seen conférence mu sollicité ma ma ñëw def couverture bi mu rafetlu ko boobu ba tey di ma encouragé mosul taal yi tey ñu def première édition exposition des femmes entrepreneurs de Thiès def ko mu nekk suñu président d'honneur mu ñëw ci teewaayam assisté sunu diine de gala de distinction bi ñu rafetlu ko bu baax di ci fëddaliwaat sunu kóllëre sunu diggante moom sama diggante président Ablaye Dièye dina jaaxal ñu bari mais man li may wax du ma tiim fay di ko lii lu ma dund la te looy dund soo koy relaté doo ci patine te doo tatone koo xamante ni la dëkk Thiès bëgg Thiès ba pare am fu mu teg jigéen ñi dara ñëw ko lu jigéen ñi ak ndaw ñi président Ablaye Dieng mu ngi ci hôpitaux yi président Ablaye Dieng xeebalul kenn bisam mu ngi ci gàmm yi mu ngi ci tant yi mu ngi ci ngénte yi mu ngi ci dëj yi ku mel noonu nag suñu ko amee bi Thiès dañ koo war a jàpp ak suñu fukki loxo ak juróom ndax yombul ndax boo xamante ni si ba mu nekkulee DG la doon def lu baax démb ak tey ku ci nekk am fu mu jaar ak yow foo taxaw wax fa président Ablaye Dieng ñu ni la def na fi lii defal nañu lii financé na femmes yi kooku defe naa ni ba muy def du tey démb la woon loolu nag moo tax président Macky Sall renouveler confiance am ci moom def ko DG AIBD te yeneen ak yeneen ak yeneen poste dañu ñëw incha allah parce que il a un cœur d'or seetaanul kenn tànqamluwul kenn te jàppale na waa Thiès ñu de jigéen ñi jooyuñu benn yoon leader ndax am na leader bu mat sëkk muy président Ablaye Gueye people bi nekkul waa femme leader yi nga xamante si ñoo nekk ci région de Thiès bi département de Thiès bi ñoo nekk mën naa cee lim ndax groupement femme leader yi nga xamante si ñoom ñoo nekk département de Tivaouane muy groupement sopp sëñ Babacar si ñu ngi fii toog depuis groupement bi nga xamante ni si ñoom ñoo tudd noom sa dëkk nekk Kayar ñu ngi fii toog département de Mbour groupement Sopp Sëriñ Touba ñu ngi fii toog groupement Fayu ñu ngi fii toog Kër Masamba Gueye ñu ngi toog groupement sëñ Saliou bi nekk kër Mor Ndiaye ñu ngi nii toog groupement Sopp Nabi kër Maam El Hadj Taaxi Kaw Ngent ñu ngi nii toog bàyyiwuñu benn groupement féminin ñëpp a ngi takkoo booloo doole boole seen doole ñëw taxaw jàppale président Ablaye Dièye ndax ñun kat amuñu ko dul moom ndax lisuñu ko moom organiser autorité yi bari na waaye moom nag lu daf noo taxaw jàppale ñu soutenir ñu am yéene bu rëy a rëy a rëy ci femme jàmbaar yi am nañu femme leader maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant waa am mbégte tey teew ci bés bi nga xamante ni mën na nii barkeel na ndax eh, taw bi nga ni borom bi wàcce na ko tey lii day wane ni les femmes représentent une source d'inspiration mais également une source donc di leen ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di am mbégte vraiment teew si bésu delloo njugal bi nga xamante ni les femmes jàmbaar ñoo ko woote ngir delloo njugal seen président DG foofu damay nuyu ñi nga xamante ni mooy honorables invités yi nga xamante ni ñoo fi ñëw tey ñu répondre favorablement malgré gis nañu ñu ñëw ñëpp toog nañ parce que ku fi toog rek mën naa jaar ci sa tur sant la gërëm la ndax gis naa considération bi ñu am ci man yëg-yëg bi ñu am ci man moo tax xuus nañ ci taw bi bu amee la pour ñu ñëw toog xaar ñu ba may jël sama discours donc maa ngi nuyu autorités yi fi nekk yëpp nuyu d'abord kilifa diine yi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw Euh, di leen ziar bu baax di kontaan ci ñoom ndax it xam ngeen bi kees rek moo leen ñor bu leen suñu sœur Aminta woowee pour ñëw fekk bés bi ñu bàyyi seen yitte ñëw donc kilifa diini pour ma lim su ma ci limee Serigne Abdoulaye Mbacke mi nga ni moo fi ñu nuyu naa Serigne ji fi toog bépp mais également sama xarit Serigne Cheikhouna Mbacké moom it bu ma ko nuyoo rek nuyu naa kilifa diine ji fi nekk bépp nuyu les responsables politiques yi nga xamante ni ñoo bokk vision ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk idéologie bi ñu am donc accompagner la vision de son excellence le président de la république Macky Sall muy waa Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni tey jàpp naa ni tout Benno Bokk Yaakaar est présent lii lay wane ni rek union des cœurs bi ma yàgg woote tey ñun ñëpp ñoo doon d'accord favorable ñoo ànd ak Malick si bésu delloo ñu koy ñoo xamante ni jigéen jàmbaar def nañ ko ngir sargal ma mais également ngir animé euh, le terrain politique ici à donc maa ngi sant ñoom di sant euh, sama mouvement politique waa si di dem donc moo it gis nañ seen taxawaay gis nañ seen jàppale bi nga nañ ko moom ba léegi su ma limee mais sant naa ñu fi toog yëpp kontaan bu baax si communicateur traditionnel yi te artistes yi nga xamante ni jël nañ fi euh, euh, parole wax wax bi rafet mais également suñu frère Papis Diallo nga xamante ni vraiment xam nañ xariñam ak euh, engagement am si liggéey bi nga xamante ni moom lay def tey nag wax ji si jigéen ñi la jëm su ma koy jëmalee dama koy jëmale ci femme jàmbaar jàpp naa ni ñoom li ñu tuddee seen tur ça reflète exactement leur préoccupation quotidienne ndax ay jàmbaar lañu ndax sama xamante ak madame Aminata Gueye madame si si liggéey la xamante si développement la ñu xamante mais également si gëm. 15 dañu xamante moo tax boobu ba léegi ñu àndandoo jàppante ma koy accompagner parce que man jàpp naa ni jigéen boo xamante ne dafa nekk si yoon dañoo war a dooleel dañoo war a jàppale donc nag tey loolu nga xamante ni man ak moom signé woon nañ benn pacte alliance depuis 2019 ma koy jàppale si projet yi ñi nga xamante ni moom la am donc tey moo tax tey ñoom it ñu am reconnaissance ngir delloo ñu dugal si bés bi nga xamante ni mooy bés bi nga xamante ni bi la ñu teew tey Aminta nag su may wax ci moom xam naa ni duñ fi jóge ndax c'est une femme battante c'est une femme engagée mais également c'est une femme bi nga xamante ni si beneen tam mooy liggéey mais également accompagner jigéen ñi ne leen tey li ngeen def wane vision. seen gëm-gëm mooy participer au développement de ce pays parce que discours bi nga xamante ni te chargé de communication wax na ko donc je pense que ni loolu rek day ñu discours jigéen ñëpp war nañ ci jël en exemple xam ni jigéen du objet boo xam ne rek dañ koy teg ku ko soxla utiliser ko soo paree nga bàyyi ko dem tey jigéen ñi ay femmes leaders lañu ay femmes entrepreneurs lañu donc war na leen fekk fi ñu nekk dooleel leen si projet yi nga xamante ni moom la ñu am donc le message a été entendu dégg nañ seen préoccupation et je pense que ce pays ne peut pas se développer sans les femmes parce que wax ngeen ko. Euh, proverbe bi mu wax man dama koy gën a dooleel mais sans la femme je pense que on peut pas avoir un pays qui émerge mais également parce que derrière un grand homme il y a toujours une grande dame voilà les grandes dames les femmes jàmbaar yi nga xamante ni tey ñoo ñëw taxaw si ginnaaw Ablaye Dièye ko pour dooleel ko ndax mission bi nga xamante ni moom la ñu dégg ñu mën ko réussir en tout cas toutes nos félicitations te xam ne ni nag comme ni ma ko waxee woon du ma wax bàyyi ñun dañuy jëf parce que on communique dans les femmes, il faut les accompagner, il faut les autonomiser, mais également il faut les capaciter. Donc, loolu la ñu àndoo démb loolu la ñuy continuer di ànd tey donc dina leen taxawu seen i projet taxawu leen seen formation également taxawu leen si seen financement parce que loolu moo nekk suñu vision loolu moo nekk suñu programme loolu nag mooy programme son excellence de président Macky Sall parce que le président Macky Sall dafa teg jigéen au cœur de ses préoccupations ndax bu ngeen gisee tey toutes les structures de financement jigéen jigéen nga ciy jiital ak jeunesse donc tey entrepreneuriat. capacitation financement président Macky Sall def na ci lu bëree bëree bëri ci jigéen moo tax tey jigéen ñi nga xamante ni kenn mosu leen woon xam ci politique nag kenn mosu leen xam ci taxaw ay base di tàccu tey ñoom ñoo ñëw mais gis nañ Abdoulaye Dièye yaa ngi traduire en nag la vision du président Macky Sall pour le développement mais également pour l'entrepreneuriat des femmes dinañ ñëw ànd ak yow si vision boobu pour nga mën ñu dooleel pour nga mën a ànd ak ñun si développement en tout cas xam leen ni maa ngi leen di rassuré les femmes am ngeen leader boo xamante ni li ko ñor mooy jàppale leen li ko ñor mooy le développement de Thiès mais également li ko ñor mooy accompagner les politiques publiques yi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall moom la teg fii ci Sénégal di ko doxal donc di wax ne rek ni sur le plan politique. tey dafay sant waa Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni tey je pense que ni c' est l' ensemble de Benno Bokk Yaakaar ci qui sont venus répondre favorablement à cette manifestation. loolu day wane ni rek c' est dans l'union des a yegg fi ñu war a jëm ñu ngi nag xaar en attente parce que képp képp leader boo xamante euh, nekk nga fi rek. je pense que ni benn dénominateur commun la ñu am mooy le président de la République Macky Sall Euh, la déclaration des candidats bari na ku nekk yaa ngi jóg ne da nga bëgg a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar je pense que il faut qu'on ait raison garder parce que ñun ñëpp dañoo bëgg président le président Macky Sall se présente pour un troisième mandat lépp leader bu taxaw tey ni candidat laa bëgg a nekk yow bëggoon nga président Macky je pense que ni nañu ànd ak dal ànd ak tey xam ni le président Macky Sall li ñu joxoon confiance te ko dañoo bëggoon nga continuer euh, euh, euh, les projets de l'émergence pour troisième a renoncé par plusieurs raisons pour la stabilité pour la paix mais également pour que Sénégal mën a continuer si jàmm salaam bi am moo tax nag ma ni képp koo xamante ni euh, gëm na gëmoon na noonu war nga mën a am raison garder déglu son excellence le président Macky Sall mu man à mon nom je peux dire que tous les responsables de Benno de Thiès restent en attente de la décision finale du président de la République pour nous désigner ñëw ñun ñëpp dana àndandoo booloo nekk benn wàcc ci terrain bi toute la région de Thiès liggéeyal président Macky Sall ba Thiès bëgg na mu nekk locomotive bi nga xamante ni a yóbbu coalition a Bokk a vers la victoire en 2024 et ça je pense que je vais porter ce ce àndal les responsables les leaders de Benno Bokk Yaakaar ñu liggéey au niveau de la base pour la candidature bi nga xamante ni président Macky Sall war na jiital parce que jàpp naa ni ki nga moom la ñuy jiital ça sera une équipe nag ku si nekk da ngay am pàcc boo xamante ni moom ngay liggéeyal te donc ñun loolu la ñuy xaar si président Macky Sall dina teg équipe boo xamante ni bu ñu demee 2024 dina mën a gagné yi jigéen ñi yaakaar bi am ci ñun am ko ci président ñu mën ko continuer parce que dëkk bi dafa nekk si yoonu développement nekk si yoonu émergence te nag émergence kenn la futur dañ ko war a continuer donc tey jàpp naa ni képp koo xamante ni ànd man maa ngi ñaan nga xaar la décision bi nga xamante ni moom la a teg nga ñëw ànd man ñu wàcc ci terrain parce que xam naa xam ko ni ngeen doon le terrain ñun li ñu xam mooy dem ci askan bi waxtaan ak ñoom euh, euh, euh, saafanteeg ñoom xool seen i préoccupation ñu mën ko saafara te nag loolu mooy suñu doxal loolu la ñuy def ba ñu mën a egg si victoire Benno Bokk Yaakaar en 2024 parce que loolu je pense que ni mooy njariñu Sénégal parce que euh, les grands projets du Sénégal n'est plus à discuter su ñuy ñëwaat si réalisation yu président def bi ñu fi jógee mais tey jàpp naa ne sur le plan international mbir mi dem rek na président euh, cër bi nga xamante ni CEDEAO euh, jox na ko ko donc tey jàpp naa nous avons à qui on peut compter donc nañ ko jox confiance pour ñu jiitalal ñu mën a ànd ak moom ndax ñu mën a continuer les projets de l'émergence pour un Sénégal plus fort mais également pour un Sénégal boo xamante ni jeunesse bi jeunesse bi seen bopp ndaw ñi di seen bopp ndax le président Macky les jeunes au cœur de ces préoccupations donc ndaw ñi dalal leen seen xel parce que ñun ay ndaw lañ loolu bokk génération président bu ñu wóoree dénk ñu ay responsabilité c'est parce que am na vision ci xale yi am na vision si si si jigéen ñi donc dalal leen seen xel xam ni dëkk lii tax mu defaru mooy jàmm ak salaam bu leen kenn woo ci xeex bu leen kenn woo ci taal damay profité si occasion bi encore di remercier waa Thiès toute la jeunesse de Thiès nga xamante ni événement bu ñu mën di am Thiès a été toujours calme Thiès a été toujours dans la paix et la stabilité kenn mënu leen manipuler parce que maintenant la jeunesse est consciente dañu nekk ndaw ñoo xamante ni kenn du leen dugal si loo xamante ni dina leen mën a indil ay jafe-jafe donc maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di mu ngi nii la mu ngi nii góor jigéen mag ak ndaw di fi teew ñëpp kontaan naa ci ñoom suñu kilifa diine kontaan nañ ci ñoom am encore une fois de plus toutes nos le palier de la mobilisation. Nous allons grâce à Dieu qui a ouvert ses vannes, c'est parce que c'est l'abondance, c'est la prospérité aujourd'hui au public qu'on a gagné. Je voulais dire que euh, nous tous, nous sommes dans un mouvement présidentiel. Nous avons laissé euh, euh, toujours accompagner la vision de son excellence, le président Macky Sall. Nous avons eu, chaque leader avait voulu que le président Macky Sall puisse continuer pour euh, un troisième mandat. C'est parce que par la grande de cet homme, il a euh, montré une posture républicaine en renonçant à sa candidature. Et aujourd'hui, chaque candidat déclaré doit avoir raison gardée et respecter la décision de son excellent le président Macky Sall. Donc nous tous, nous devons attendre le candidat qui sera proposé par le président Macky Sall. Et je pense qu'aujourd'hui, Thiès est mobilisé. Benno Bokk Yaakaar de Thiès est mobilisé pour euh, répondre favorablement au candidat qui sera choisi par le président Macky Sall et nous allons l'accompagner parce que ce candidat va être accompagné par une équipe et Thiès ne sera pas en reste parce qu'aujourd'hui, Thiès a été toujours au cœur de la politique. si on gagne Thiès, on gagne le Sénégal et Benno Bokk et, et, va vers une victoire en 2024 parce que tout ce que le président Macky Sall a fait au on ne doit pas passer à une rupture, mais on doit euh, une continuité des projets, une continuité de l'émergence, parce que le président Macky a beaucoup fait, surtout à l'endroit des femmes. Parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui m'honorent, c'est les femmes d'Amar, les femmes à qui je peux dire que sans la femme, une société ne peut pas se développer. tout cas, vous les femmes d'Amar, vous avez mon soutien. On vous accompagnera, parce que vous savez tous, Abdoulaye a été toujours là, accompagner les femmes pour le capacitation, pour leur financement, notre autonomisation. Je voulais vous rassurer que nous allons continuer cette démarche parce que depuis des années, on a eu à faire un compagnonnage avec les familles libérées. Donc nous, nous mélangerons aucun effort pour nous accompagner par des financements, mais également par des projets structurants, parce que le président Macky Sall a toujours placé la femme au cœur de ses préoccupations. Parce que les structures de financement répondent favorablement aux jeunes fait aux femmes. Donc que le pays a besoin de cette continuité, mais également le pays a besoin de stabilité et de paix. Et le président Macky Sall est l'incarnation de cette paix, mais également est l'incarnation de ce développement. Nous devons l'accompagner à conjuguer cette émergence et cette émergence, ce sera une victoire de Benno Yakar en 2024 avec des leaders et des responsables de Benno qui seront unis parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tout le Benno est présent. Ils ont répondu à cet appel parce que je pense que je peux porter ce flambeau pour réunir tout Benno de Thiès, l'intérêt du Sénégal, mais également pour la victoire de 2024. Merci encore une fois.